lile moo di ñaareelu yoon Baobab gu Sénégal lëkkaloo ak Baobab bu France di tàggat ay jigéen eh, fii ci diwaanu Bambey Gana Mbaye moom moo jiite Baobab Sénégal. sant ak di gërëm association Baobab France bi nga xam ne nii moom moo financé formation bi ñu ngi ci suñu deuxième formation ginnaaw buñ ko defaroon daaw jigéen ñi nga xam ne ñoom ñoo nekk Kër Maas pour ñu def ko tey aussi wuti ko fenn ñi nga xam ne ñoom lañ formé woon Kër muy aadama mi nekk responsable bi koy sant di ko gërëm mu teew nii moom moo assuré formation bi ak ay assistantam moom mii sax di muy xamle ni li de dina tax jigéen ñi mënal seen bopp liñ ci jublu aussi mooy fexe ba jigéen ñi am koom-koom bu leen mën a permettre ñu jàppale seeni njaboot mais aussi euh, am li ñu tuddee activité génératrice de revenu maanaam loo xamante nañ ci mën a jëlee dara pour yëngutu ci parce que comme ni ñu ko waxee sàng yàlla bi ñu fi wàccee li ñu sant mooy liggéey ak jaamu yàlla donc comme lii dina leen permettre ñu liggéey moo tax ñu wow leen ci euh, vraiment euh, jàppale leen pour ñu am compétence yooyu leen permettre ëllëg ñu mën koo jëriñoo jëriñ ci seen njaboot mais aussi jëriñ ci seen réew. du yem rek si mënal seen bopp waaye dina tax njëg yi nga xam ne dañ koy jëndee yenn produits yu cher yii de mu gën a yomb ci ñun. jamono bi nga xam ne dañuy wax ne njëg yi dafa cher bu fekkente ne. dañu def benn formation bu am ne liñ ci jublu mooy ñu xool nan la ñuy mën a jëlee li ñuy béyee ci réew mi transformé ci ba mën cee créer ay euh, plat yu bëree bëree bëri ay façon yu bëri ci ceeb bi nga xam ne dañ koy béyee fii ci dugub bi ci ñebbe bi ci mboq bi loolu dina permettre tey famille yu bëri cherté de la vie boobu ñu mën ko faire face. jigéen ñooñu sax ñoom day ñu ciy am mbégte ka leen doon tàggat naan ñoom ñi di day jafe-jafe yi rek lañ am. dañu manqué mooy financement parce que financement bi la tam ji nga jàng dañ ko jàngal noonu rek mu dem mais su fekkee jàngal ko jox ko tuuti produit li mu li mu yor nii mu mu di ci soox mais boo ko jàppalee ay tànkam dina dem. loolu mooy suñu. Gana Mbaye mel ni ku dégg lu ni mel di xam ne ñoom ñii duñu yem ci phase bi rek dinañ leen tàggat ba pare jàppale leen ànd ak ñi nga xam ne ñoom ñoo di waa nguur gi lee. ñi nga xam ñoom ñoo ñu jàppale ba financer yi ñoom pare nañ pour jënd ci produit sax yóbbu ko en France pour euh, vraiment ñu xam ne ñii ñoo leen jàppale bañ mën a liggéey lii te partenaires incha allah mën nañ jënd en quantité yóbbu ko donc pour répondre à la question formation yi première phase la mais après dinañ leen formaliser. mais aussi nañ leen jàppale ci ay financement yoo xam ne mën na jógee ci association bi mais aussi trouver leen des créneaux à travers les service de l'État yi nga xam ne dañuy jàppale eh, jigéen ñi lu mel ne ay DER lu mel ne ay crédit mutuel nga am ne ay financement dafa yu mel ne ay organisme yi jàppale jigéen ñi nañu waxtaan ak ñoom bu ñu leen formaliser pare xool ñu leen ñoon di jàppale ci ay financement pour ñu mën a eggale seen liggéey. ñañ doon tàggat nag rafetlu ànd ba suñ dëggalee suñu bopp am matériel am ñu ñu financé dinañ dem jàngal nañu fi lu bari kontaan nañ ci formation bu baax a baax di gërëm Baobab France di gërëm Baobab Sénégal mi nga xam ne monsieur le maire Gana Mbaye moo ko jiite. tàggat boo xam ne nag bañ ci jógee am nañ ci ak lijaasa guy wane ne ñoom ñii mën nañoo soppali lii nga xam ne moom moo di meññeent ñum réew.